tiim ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo loo jëf ñu dal koy ful lu dul laa ngi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñoom dañu seetaan noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen bala ak di leen ko baal di jiital ci sunum nuyoo ñu yoon wi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla yéeneem ju sell jii mu am suñu boroom dëppale ko nag ak kàttan ak wér ak fan wu gudd ba lépp loo xam ne yéene na ko def suñu boroom bàyyi ko fi ba mu def ko te ñu ànd ak moom lépp nag te am ci ngërëmul sëriñ bi euh, euh, ngeen di ci ànd ak seen mbokkum taalibe Gana Messere Maxtaar Euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci tomb yu am solo yi mu andi ci turu Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xam ne jot ngeen ko topp ci moom donte lu bari la lu lu mu li mu lu mu tibb tuuti topp ko itam ci turu borom tubaa yi nga xam ne moom dëkkub tubaa di àndak moom itam ci Abdullahi wa Xaadimu Rasul abdullahi wa xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan suñu borom yal nañu yàlla defal dégg ak topp waaye moom it yàlla ko yàlla taxawu ñuy jaajëfal bu baax a baax mboolem koo xamante ni bi rek jataay bi ñor na la ba nga def ko muy sa yitte eh, eh, sëriñ Tuubaa nag wala boog Abdullahi jaajëfal bu baax sëñ Gànna ci fi ci tollu ñu xam ne jaamub yàlla moom képp koo xam ne aadama la jur rek jaamub yàlla nga ak ñi aadama jurut it ay jaami yàlla lay lépp lu yàlla sàkk tamuy muy mbindaafoon rek jaamub yàlla la boo xam ne yàlla rek ay buur ko day ab jaam waaye nag da cee settee ñun ñi nga xam ne dañoo togg ay bàkkaar ndax na ñoo xam ne bàkkaar du leen fa fekk garab gii na sëmm ci àll bi jaamu yàlla ndax yàllaa ko bind di borom waaye amul lu ko bàkkaar di fekk rab yii nekk ci àll bi yàlla topp leen dara ba bu ëllëgee sax dañ leen di def ngelaw wala nangam ak nangam waaye duñ taxaw bis penc waaye daa am ñoo xam ne nag suñu borom daf leen a togg bàkkaar wàcc leen ci jamono ngir na leen nag yéen ñii yéen ñi nga xam ne yéen a ma war a jaamu te bu ngeen ma jaamuwut bu ëllëgee ma mbugal leen. wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbudun kon nit ak jinne ñoom am nañ responsabilité ci doon gi ñu doon jaamub yàlla bu leen yàlla teg ay yëfam ñu war koo jaamu bokk yi ana naka lañ war a jaamoo yàlla yàlla daf ne bala ngeen maa mën a jaamu rek il faut ngeen jéem maa xam ba pare yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax iqra lañ ko njëkk a wax iqra mooy jàngal booba xamut lu muy jàng sa jàng dara bi ko Seydina Jibril dikkiree moo tax boo demee ci alquran ñaari iqra yooyu am na ci iqra mu ne ko lan lay jàng mu ne ko iqra bismi rabbika jàngal sa turu borom bi gën a màgg borom boobu mooy ban mooy bind allazi xalaq mooy ki nga xam ne moo la bind kon yàlla mi ñu bind moom nga war a jàng ba xam ko soog ko mën a jaam moo tax Abdullahi garaat bu rëy la koo xam ne ñëppay jaami yàlla lañ waaye jaamub yàlla bu dem ba yàlla nangu ne ab jaamam la tappalaat ko garaatub jaamub yàlla ja yow sama jaam nga yàlla am na jaam yu muy puukare woo naan ñii samay jaam lañ abdi samay jaam lañ boo déggee baatab abdi rek mooy am na ñu muy wax jaam yi yi nga xam ne ñoom la reconnaître dëgg ñu tege ci euh, la loolu sëñ Tuubaa da cee bokk baatub Abdullahi dafa jaamu yàlla ci xeeti jaamu yi nag yoo xam ne bokkaliwu ko ak dara bokkaliwu ko ak dara sëriñ Abdul Ahad yàlla yàlla fayal daana wax ne sëriñ tubaa bi mu nee dann borom subhaanahu wa taala di ko jaamu soo ko bëggee wan la leen yàlla daf lay tontu na la lastu amilu li siwa maa yurdi rabbu samawati wa rabbul laat mun leen na fexe ba jengloo ma jëmloo ma ci kenn ku dut borom asamaan ak suuf mun aw ma soxla ci leneen kon gis nga te loolu lu ne àdduna wan na ko ko ci lu ne bakkan wan na ko ko ci lu ne bànneex wan na ko ci lu ne saytaane wan na ko ci ngir lan bëgg fexe ba sëriñ bi boole yàlla ak dara sëriñ bi allahu rabbi wala usriku bihi yàllaay sama borom te duma ko bokkaale seeb laa dina xam ne waxoon nañu ne in tansurkumullaahu yansurkum bu ngeen ko bëggee firi nu ngeen di wax ñu ne ko boo dimbalee yàlla yàlla dana la dimbalee koo xam ne nag bu la dimbalee du tolloot ca bu téyee ndimbalam amut keneen ku la mën a poussé waat ci lan ndimbal ginnaawam kooku bu dee wax bu ngeen ma dimbalee ma ma dimbale leen da dangeen di war a dégg maanaam yi ñu ne ko nan la ñuy dégg maanaam yi mu ne bu ngeen sàkkalee yàlla aw lay yàlla dimbale leen dëgg-dëgg maanaam maa ngoog kooku moo dégg alxuraan moo tax mu ne lay wi mooy lan mooy allahu rabbi wala usriku bihi xam nga jaam bi bu jàngee fatiha rek dafay am engagement bu muy jël waaye bu doxee tuuti rek day weddi nit ki nga signanteel contrat jugagoo fi nga nekk nga xëtt contrant ba danaan kii bu ma continuer moom daf may fonto xam nga jaam bi day jàng bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin maliki yawmi diin yow yaay ba yawmi diin bis boobu yow yow mii yaay borom mu ne ko kon ginaaw xam naa ne nag yaa yor ndimbalu àdduna ak yërmandey àllaaxira te lépp ci sa loxo lay teew kon iyyaka na'budu yow rek laay jaamu wa iyyaka nasta'inu te ci yow képp laay wuta ndimbal problème baa ngi noonu yow rek yaay doon sama borom yow rek laay jaamu te it ndimbal du ma ko sàkku ci kenn ku dul yow da ngay gis ku waxanteeg moom yàlla loolu ne ko yow rek yaay sama borom nga géeg am ku ñëw taxaw mu naan ginnaaw yàlla ak yow bu du toon yàlla ak yow bu du toon yàlla day di yow wala ginnaaw yàlla day yow rek laa yaakaar kon kooku iyyaka na'budu mooy du ma la bokkaale kenn yow rek laay jaamu dindi na ko wa iyyaka nasta'inu mooy sëñ bi man di sësuma ci kenn boo ma dimbaliwut aw ma ku may dimbaliwaat képp kum bàyyi ko ci ak nu façon dimbal la mel rek wa iyyaka nasta'inu toxal nga ko sëriñ tubaa nag ba mu ne allahu rabbi wala usriku bihi yaar yooyu bu ci nekk da cee wut aw lay moom moo abdullahi wa xaadimu rasul benn bi ci des mooy bi yàlla dogalee woy juróom wàcc ab liggéey di sëñ Mbàkke Mor Anta Sali magam di sëñ Mor Jaara nekk poroxante ñëwagul sëriñ tubaa toll ci di tu tànk amagul ñeent fukki at fanweeri at ak nangam lay walam wala am ñaar fukki at ak nangam booba du ay mag yoo am juróom-benn fukki at ak ay juróom fukki at ak nangam di ay baayam jàngal ko yaroo ci keppaaruk baayam ñenn ñi di ay bokki baayam Lat Joor di buurub jamono booba mooy yëpp nekk ci moom Sëriñ Tuubaa di yurub yaar fukki dërëm ñu mën ay yitte ñu jàpp ci loxoom ne ko tey jii dañ la yóbbu ci buur ndax sa xaritu baaya mu jaale la bari na ñoo xam ne njaal mu doon rek danañ ci bàyyi xel waaye du yem ci jaale la bu noppee fa mu tegoon sa baay la koy teg su ko defee la sa baay yoroon nga yor ko muy responsabilité bu rëy ci ci ngone gone lu leen sëñ Tuubaa tontu mooy man damaa signé ak yàlla contrat mooy iyyaka na'budu yow rek lay jaamu wa na nasta'iinu ndimbal ci yow rek laa ko sàkkoo moo tax xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaayisa tuxni kulla maa indi fa xulta asbiya loolu leen sëñ Tuubaa tontu xam nga baat boobu moo doy waar bu man yàlla doy na ma yàlla doy na ma bu leen ma wutal kaneen ku ma war a dimbale yadii li muxnin karimin naafiin zamadin laa li darahima taati min fulayti yàlla na sama loxo bii jomb naa koo tàllal as mbuuru su àdduna soo xam ne bu xiifee wuti lum lekk bu gëmmentoo day tëdd nelaw fàtte nguuram bu maree day ñaan ndox naan bu sonnee day noppalu bu day faju ji bu woppee day dee kooku day duma ko tàllal sama loxo kan ngay tàllal sa loxo mu ne ki nga xam ne xayun laa yemut mooy ki nga xam ne day dund te du faatu te moo ma sàkk man ma dib jaamam kooku rek lay tàllal loxo kon wa iyyaka nasta'inu ndimbal du ma ko wut ci kudut yàlla Sëriñ Tuubaa moo ca jaar ba réussir baat boobu Abdullahi Sëriñ Abdullah nettaliwaat na ne keroog yàlla dogalee ñu tabal ko ci kasom bu miti boobu wala boog kàmbam yaram mañ ko gasaloon tàbbal ko ca nee na malaayikul muxarrabuun yëpp fekk nañ ko fa moom Serigne Touba kenn ku nekk bëgg koo génne ba nga dikkee laa wax ne ndax sa borom moo la yabal ne la demal génne nga ne ko déedéet waaye am naa cër ci sama borom boo xam ne mën naa la fee génnee mu ne ko cër bi nga am yàllaa la ko jox te kàmb gi ñi ko gas yàllaa leen yàllaa ngi leen di seetaan man min ci tabbalit xam ne na jaamam laa su na mee ma faatu bay ma ma faatu ci kàmb gi su ma waree génne dana ma génne ci sa yoon du ci nekk bay leen maag yàlla mi ma bind sëñ bi loolu loolu mooy du ma wakkirlu ci kenn ku dul yàlla kon jaayante ak yàlla ci di ko liggéeyal te du ko bokkaale waaye mu waxal boppam yàlla mii na nga xam ne mooy sama borom ma di ko jaamu te fasuma ko yéene bokkaale kenn moom nag moo ma joxoñ na ma am nga buntu dalla ni yallaahu xalaa muhammadin yàllaa ma tegtal Moustapha ni mu ko tegtale ñëpp ndax yàllaa ne joxoñ yonent bi atiixu llaaha wa atiixu rasul yàlla nee na topp leen ma man yàlla te roy ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ma toppee man yàlla topp ngeen Moustapha sallallahu alayhi wa waaye ni ngeen ma toppee nag roye leen ko ci Moustapha ndax moom maa ko jàngal ni may toppee kon ku yàlla bëgg a dimbale daf lay joxal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> Abdullahi wa xaadimu rasul bi ko yàlla joxañee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa siñenteeg moom contrat bu mooy laata may yàlla yi booleeg yow fas naa yéene ndax dama la bëgg ci sama xol dama la bëgg mbëggeel goo xam ne du mbëggeelu caaxaan mbëggeel goo xam ne du caageenu ne gis la sa jëmm ji yàlla jox la cër ma bëgg la ngir cër bi bëgguma la ngir bëgg a dem àjjana bëgguma la ngir ragal sawara bëgguma la ngir bëgg ay daraja wala ay déedéet dahaani ila matxin nabi xuddi faatihi bëggeel gi ma la bëgg daal yàllaa dogal rek sa jëmm neex ma bëgg la ngir yàlla lu ma fekk ci mbëggeel gi rek baax na loolu mooy engagement bi mu njëkk a jël ci diggante ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jëlaat beneen engagement it ne samak dund day danaa ko séddale ci ñaari xaaj ndax at fukki weer ak ñaar la danaa jël juróom-benn weer yii ma di ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yii juróom-benn weer ma di ko tagg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye du ci yem de danaa ko warlul at mu ne ma ma wutal ko ay tagg yu bees xalaa man alayya walastu sadi lahoo kulla aamin hadaaya madiya tagg yooyu ma koy tagg lu ma ciy jublu dama ko koy addiyaale dama ko koy jox addiya at mu jot danaa ko génneel tagg yu bees peq moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam defal ko addiya te bokkut ak engagement bii ma jël ci juróom benn weer yi ma koy julli ci moom yii juróom benn weer ma de ko ko tagg salaatu sitta bi mat xi si ta taatihi ba tamaati say xam nga sëriñ Tuubaa boo dikkee ci lu mel ne jalibatul maraaxib wala nga dem ci lu mel ne e, yeneen di téere yu mel ne moom yi nga xam ne ay salaatu ala nabi moo ci ne da ngay fekk ne muy julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci xeetu julli wiin woo xam ne dalay lay wóor ne wii moom sëñ Tuubaa wéet na ci yi moom sëñ Tuubaa wéet na ci xam nga li gën a neex ci diggante yonent bi ak Serigne Touba ba doon jël jës bul xulub xool Serigne Touba euh, métatu waxin bi muy waxee ak yonent bi da lay wóor ne kii ku mu jàkkaar lool ak loo mën a yor xalimaam gi jekku na ko jekk goo xam ne làmmiñam wi neex na neexit woo xam ne loo mën a yor su noppee ci yow nga jox ko ko su fekkee ne moom day jàppe ne moom mooy géwélu yonent bi wala day jàpp ne mooy mooy porte neex na neex làmmiñ woo xam ne ak ñaw ñaw xalima boo xam ne comme jàpp su la bàyyee doo dese dara xoolal tag yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca du bi muy wax di wane ay maxaamaam ci jasbul xulóob bayit bi ma gën a gën a neex ba ko tiimee tudd tur wi mel na day wax ak gaa yi naan leen saaka xiyaarul arab arab yi <laughs> kii zaaka muniilul arab saaka sabilu talab tabibu ahli saxami xoolal sëñ Tuubaa ni muy waxee yonent bi te du tudd wi soo delluwaatee ci lu mel ne mawaahibu naafi fi mada ay saafi sëriñ tubaa tagg na ci yonent bi ba mu jeex ba xasida gi jeex ca tudd turam bi tudd tagg na ko ba xasida ga jeex ca tudd turam bi loolu li muy tegtale mooy cofeel bëgg gu gu jéggi daya ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo taxoon mu ko neexoon ma seen la ngay dox neexoon ma seen la ngay dox yow Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di dox nag ci suuf ba mu yàgg nga jub fu dëgër ak dégg ne fa sa tànk nar a tege kaw dégg ma daw gàttandu la fab sama lex bii tëral ko ci kaw dégg nga fab sa tànk ba jaar ci dégg bënn ba sar neexoon loolu am xoolal ma ngi cofeel nga xam ne mi ngi xalaat teraanga jum terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmi boppam ji ci lu naroon a gaar yonent bi te métti mu fexe ba loola dal ko maanaam yooyu muy xalaat rek nga xam ne yéene koo jëlale naa li mu koy tagg ak yeneen yi ci aju yëpp waaye xoolal yi ñu yéene bi wa sallam yonent bi mën nga koo bëgg mën nga koo liggéeyal mën nga koo tagg te ñi ci am maqaama yu mel noonu dañ leen di wàññi ah lu mel ne Kahab Hazan nangam ak nangam ñooñu doon wax doon tagg yonent bi kenn ku ci nekk Serigne Touba. li nga wax yonent bi lépp mën na ko boole ci génn xasidaam luum loola luum loola soo weddee nga dem ci lu mel ne asinu majamatun xasida googu sëñ tubaa da ci da ciy wax ak da ciy wax langi lang langasoo xam ne day wax ak boroomam xam naa bu fekkoon ne yàlla yàlla xereñu yàlla ak man li muy def wóor na ma ne yàlla day puukariwu ci sëñ tubaa day puukariwu ci sëñ ndax danaa ndax yéen yéen ñi garaaw ñëpp nag ndax mën ngeen a bind ku mel ne Ahmadou Bamba yéen ñi jéem a wutal yàlla ay morom waman yu sallis faridan malikan samadan fajahilun wa ilaaxi kullahun alamu loolu la sëñ Tuubaa wax yéen ñi ñett ñettal yàlla di ko wutal ndey ak doom wala ngeen diwut ay moroomi yàlla di leen ndax nag mën ngeen a bind nag benn jaam bu mel ne Ahmadou Bamba mii xoolal xaside googu asinu maajamatun bu ko sëñ Tuubaa jàppee baatu barru baa un raa un nga xam ne loolu mooy indi barru bu lay baatu euh, baat bu mu la mën a andi rek da ngay gis ne eh, xaraf la lay andil ba noppi def ko ay wayu jub dem ba ci biir sax mu naan yow mi nga xam ne nag yaa nga xawal sama mbind mii rek waaye na la ci sam xel dal te nga xam ne ki ko doon bind ko xereñ a ngi nii ko xereñ ngi nii dem na ba yéem boppam moom ci langage bi muy waxee ci assinu mu'jamatun la dafa jekku eh, kalaam ak arab daf ko jekku arab yi mu wàccoon ci ñoom ñu jàng ko sax meluñ ci ni ci sëñ moo tax làmmiñam defar làmmiñam dégg yàlla dégg yonent bi ba xam ni muy ñoom ndax yàlla moom bu wàccee alxuraan la jox na ñëpp dara lu mel ne alxuraan sëñ Tuubaa bu gisee alxuraan mu xam ne kii ku bëgg lu neex la ku xam affaire la mu ne kii yàlla baye boobu ma fexe ba bu may wax ak moom la sama làmmiñ dàq dàq dàq dàq xalam gi gën a neex ci àdduna moo tax eh, yubashiruka al baaxi bi xatti karamatan wa in kuntu an adli madinati sana yi yubashiruka al baaxi yàllaa koy bëggal ci sama mbind mi waaw yonent yàlla da ciy bëgg isa katabtu intasa arshal baaxi nee na saa yu ma jëlee xalima di bind moom aras day yëngutu moom wa sabahat malaykatu tibaaxi malayka fa nekk dañuy sabal lu xatti man ahabba lil ilah bi xayri xalwatin nee na bul sonn soo bëggee àgg ci yàlla directement jàngal sama xasida yi doo dugg xalwati da ngay àgg ci yàlla ndax lu ko waral mooy mbooleem xeeti lu ñuy jaamoo yàlla xeeti jaami yàlla yëpp muy salaato ala nabi yeeg istixfaar yaag ya ñuy def yëpp sëñ Tuubaa boole na ko ci xasida yi boole na ko ci xasida boo jàngee lu mel ne xisnul abraar xam ne lu nit di ñaan ngir mucc ak lu nu di ñaan ngir am sëñ Tuubaa da xañ ñu ko ci isnul abraar waaye boo demee ci lu mel ne hmm, lu mel ne eh, muxaddamatu bidaayatul xidma wala muxaddamatul xidma da ngay gis ne sëñ Tuubaa foofu xasit def na fi ci ay julli ci yonte bi gis nga sunu mbokki chrétien yi foofu sëñ suñ borom sëñ tubaa jëfandikoo na ko ay tur ci yonent yàlla Isa ak Moussa yoo xam ne yahood yi sax xamuñu ko woon chrétiens yi xamuñu ko woon xamuñu ko woon tur yi sëñ tubaa doon jëfandikoo foofu ndax dégg yàlla dégg yonent bi kon bu ñuy wax ne bu waxalee boppam ne man làq naa di jaamub yàlla bu yàlla gërëm ba noppi nag di di jëwriñu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bu Moustapha abdullahi wa xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxal boppam te sëñ tubaa nee na du ma wax yàlla mukk loo xam ne wóoruma dana ma ko may wala du ko may lu mu waxal boppam raama rasulullahi min ilahi nee na yonent bi moo sàkkul boppam man sama yoon nekku ci raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi kaw nii xadimuhu wa le moom faw jaamub yàlla doon waaye di du nekk liggéeyal Mustafa sallallahu alayhi nee na loolu yonent bi moo ko sàkku ci boromam man sama yoon new ci moo tax dalla ni yàllaahu ala muhammadin ginnaaw yonent bi sàkku na ci Moustapha sallallahu moom Moustapha sàkku na ci boromam te lum ñaan yàlla yàlla defal ko ko moo dem ba ci moom mu ne ko def ñaan naa la nga defal ma Ahmadou Bamba muy sama liggéeyaa kon raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu kaw nii ma nekk xadimuhu di ab liggéey ko dem waaye du ma ci yem nag man du ma bokkaale waa abdullahi nag di sab ndax yàlla dafa fiir ci nguram gi yàlla ko fiir ci nguram gi moo tax sëñ Tuubaa yàlla du ko topp ci wax ndax mosu cee def astaghfirullah lu toll na lii mu wax nag mbokk yi atta leen ko ci àdduna lu toll lii sëñ Tuubaa wax bari na ñoo xam ne buñ ko waxoon dana ci am baat boo xam ne danañ ko xoosaat sëñ Tuubaa mosu ta folliw kayit lu mu wax rek juboo na ci boromam subhaanahu wa kon adduna bu ko adduna nangulut waa kaw moom danañ ko nangul ëllëg it danañ ko nangul ndax ñaari baat yooyu lu ci nekk dafa am luñ koy natte jaamub yàlla dañ koy natt ci ay nattu dañ koy nattu ci ay nattu jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy nattu ci ay masala dañ koy nattu ci ay masala bu fekkee ne dañuy nattu jaamu yàlla ci ay nattu ndax Moussa Ka nee na sëñ Moussa Ka nattoo di kerkeraani lawliyaa yi ku weddi laaj ko xayrul anbiyaa yi mas nañu koo génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj nag boole ko naan day jabaraan boo ko doon topp ci yonent bu ci nekk am na natt yu la yàlla teg lu tax mu lay teg natt yooyu day xool sa xol ba xam li nga wax ne ko ja yow rek laay jaamu du ma jaamu la neen ndax yàlla bis du ñëw ba nga ne danaa soppi sama tey jiikat kat mën na ma fexe ba prisident mii wala buur bii wala gouverneur bii wala préfet bii ma jox ko ci yàlla su ma delluwaatee jàppaat yàlla loolu mooy ragal ku ragal yàlla sëñ Tuubaa musu ko dal fa haysumaa taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfihi kullu ahad sëñ Tuubaa nee nag ragal bu dee genn ragal ko yàlla moo tax xuppi tubaab bi mus sa déranger sëñ Tuba laaji naar yi mus sa jaaxal Tuba jay bi ci Kajoor musa sa dépenser sëñ Tuba te yett bari na ko ko amoon baat ci réew mi moo la ko xañ laajte bi ci naar yi ñu ne boroom xam-xam nga naar yi gànde gàddaaye gànnaar ñëw song la masala yi dal <laughs> bari na ku ko naar yi def ku nekk rek bañ delluwaatee tek takkaan nga sa laxasaay ne naa naa laxas jàngiwaat sëñ Tuubaa masala mosu koo jommal da daan wut sax ñuy tonti masala te jànguñu bu dee ne jay bi ci Kajoor yawa yawa ji moo taxoon ñu naan ko kaay dem seeti buur bi bari na fi ñu dee jay bi ci Kajoor leen rey sëñ Tuubaa teeloon nañ ko wax ne ko mën ngaa toog yow gone gu yow mel na yow amut bi sa baay di dund yaa raw ñëpp bi sa baay demee nga am jom sanc ab dëkk toogal bu la tubaab yi fi fii nangam ak nangam ba mu demee ndar loolu lañ ko wax ba mu demee Louga ko wax te wóor na ko ne ñoom ñii di wax ñëpp jël engagement bu tubaab bi génnee kënu ba fetal kenn ku nekk ne taalaa mucc sëñ tubaab rek ragal ak fetal fet këno kënoog fetal ak karawaas ak jaasi du tee nag moom muy way ci naas yi sëñ tubaab képpa moo tax bu dee ci nattu nattu turu Abdullahi ci ay nattu liñ ci teg sëñ tubaab mosuñu koo teg nit ko dégg nag mu nekk Sénégal di seetaan télévision wala muy déglu rajo kum mën a doon kum la wax ne am na natt bu toll na sëñ Tuubaa ci téere lay jàng ñu cay wax waaye du ko gis ci bëtam liñ teg sëñ Tuubaa doomu aadama du ne le moom diw sàngam dëkk sàngam kër sàngam di këram moom ci boppam diw di doomam moom lañ teg natt yi ñu teg sëñ doo ko dégg moom mën ngaa dégg nag benn waay boo xam ne nii sëñ Tuubaa mel melu ko neexu ko wala mu bëgg ko wutal moroom wala mu bëgg a déranger murid yi tax mu naan leen nattu sangam defoon ne waaye kook moom ci téere ci aw kayit nga koy dégg dégg aw tur waaye doo xam dëkkam doo gis bàmmeel itam du am moom ku daj li sëñ Tuubaa daj doo gis bàmmeelam laa wax doo xam ab dëkkam doo gis doomam aw kayit nag lu ci neex waaye bind wax ko waaye teg sa moom te ñun li ñuy wax muy Ahmadou Bamba 1895 la ak 1927 yàggut xabroom a ngi fii ci Touba fi lañ ko denc ay doomam a ngi nii di sëñ Abdou Lahad ak sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou ak ñoom seqal ay sëtam a ngi nii di sëñ Mountakha def fi lu kenn mënut a dindi barki dem boo njaay di sëtam kon kooku moom ay dongaam a ngi nii ay dëkk a ngi nii ay xasidaam a ngi nii yim sëriñ bi moom du ku ñuy waxal lu mu defut dañ naan la leela def duñ mën a wax lépp kay waaye dañ cay wax tuuti kon bu fekkee ne dañuy wax rek jaamub yàlla buy liggéeyal yonent bi buñ ci doon wut premier bi sëñ Bamba la ñuy génne jaamub yàlla buy liggéeyal yonent bi buñ ci doon wut première si Ahmed Bamba la ñuy kenn moom moo tax bari ay tur gis nga boo demee ci alquran yawma yunfaqu fi suur yawma yubxasuun yawma alxiyaam yow ma yu bari yooyu ci alquran yàlla bu ko neexoon rek wax ne yowmal xiyaam muy bisub taxawaay ba yowma yunfaxu fi suur bisub dekkal ba nangam ak nangam yowma yubxasuun waaw bisub dekkal ba yowma yunfaxu fi suur maanaam ba yowma yooyu yowma yooyu yëpp bu neexoon yàlla mu tudde ko benn bis waa dalay wan tiital la wan ak dangar ji ak xatar ji nekk ci bis boobu moo tax mu bari ay bis mu bari ay tuur koo gis mu bari ay tur rek moytandiku ko am na ay yëf gis nga moo tax gaynde mi gën a garaaw ci àll bi sax da dégg ñu naan njaay njaay àll njaay àll gaynde lañ ciy jublu ngir suturaal tur wala ndax ragal ko ñeenaan gaynde nu ne daañ ko ko wooye lu ko waral mm, xaw a doy waar moo tax sëñ Tuubaa tur yu bari yi te nag tur woo dégg nag ñu ko sëñ Tuubaa du caa dañoo neex rek ñu wax ko déedéet bi muy tudd Ahmadou Bamba baayam ak ko tudde rayal ko cim xar Ahmadou Bamba di nit dëkk Mbamba Sall ñu tudd ko Ahmadou Bamba mu dox doxiinu Ahmadou Bamba waleer nañ ñi ba àdduna teg seen bët muy doom ju topp baayam te mosu koo yàqal dara wa wasayna al insaana bi waalidayhi husnan amalatu ummuhu karhan sëñ Tuubaa topp na baayam toppin wu rafet ba baayam gërëm ko kon ba muy doon Ahmadou Bamba am na nu mu toppi baayam bi mu sañceeb dëkk nag ñi ñëpp def sañcub dëkk moom ko boo demee Ndakaaru ña nga naan jël jóob boo demee Ceeskaay ña nga naan jànqeen soo demee faneen ak faneen <coughs> fu ci nekk wutal nañ koo tur Sëriñ Tuubaa bi mu sañcee dëkkam bii nga xam ne kenn mësu koo moom biñ ko nee wutal koo tur mënoon na koo tudde Bamba Mbamba Mbàkke mënoon na koo tudde mbakkiyun wala ko tudde ko nangam ak nangam waaye lu mu tax mu tudde ko dafa delluwaat ci alquran inna allazina amanu wa hamilu salihati tuuba lahum wa usnu maab mu ne naa ko tudde tuuba tudde ko tuba amub dëkk di borom tuuba du luñ ko keréyal bi mu tuddee abdullahi tudd xaadimu rasul jaamub yàlla ba jaamu yàlla ba àgg ci ne la aaza abdullahi jaamu naa yàlla ba yàlla tappal ma galot jaamub yàlla xam nga militaire ñëpp la général ba sax am militaire la caporal ba militaire la sergent ba militaire la waaye militaire bi nekk ci faron bi nag di xeex di xeex bañ tàppal ko garaatu général bokkut ak euh, nag euh, ñi ci des gobi yaag yooyu kon ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax a baax euh, suñu mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan di leen jéggulu ci jataay incha allahu rabbi xam ngeen ne Euh, dañoo ne ci waajtaayu màggalu Touba euh, incha allah da déggaat ci yeneen jataay sëriñ Gana Messere Makhtar ñi ngi sant bu baax suñu caméraman Alaaji Fallou la di santaat bu baax a baax di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram di ñaan yàlla mu defal ñu màggalu jàmm gu bari xéwal lool te ànd ak euh, teraanga sutura di ñaanal ñëpp ñu ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéem naa màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu dul laa ngi